salaamaaleykum tout le monde nuyu nañ leen yéen ñëpp euh, di leen ziare euh, di nuyu aussi ki nga xam ne moom mooy monsieur Niass euh, di rafetlu aussi initiative bi di nuyu aussi ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal muy waa Sénégal vert merci. maa ngi tudd Sophie Traoré di présidente fondatrice de l'association Sénégal vert bu ñu nee Sénégal vert dafa nekk association bi nga xam ne day yëngatu lépp li nga xam ne day protéger environnement bi ñuy def li nga xam ne moom mooy recyclage set setal plaidoyer ay formation ak ay Euh, bu delloo ci bis bi tey euh, lu ñuy njëkkee rek dañuy saluer initiative bi euh, mu nekk journée bi nga xam ne journée bu am importance ci fi nga xam ne moom mooy Kaolack ak ci Sénégal ak li ko wër lépp parce que booy xool temps yi réew mi tàng na trop pollution beeg yooyu yëpp ñu ñëw tey ci journée bi def li nga xam ne moom mooy recyclage c'est-à-dire jël objet yi nga xam ni mooy pneu yi nuñ ko miinee mooy ñi nga xam ne am nañ ay ñaxtu ñoo ngi ñaxtu ci yenn yi mer nañ Euh, dañuy jël taal euh, ñi nga xam ni mooy xale yi dañ ciy jël di ko fawee léegi ñu ne pourquoi pas ñu jël ko jox ko une deuxième ku merati léegi euh, pneu yi doo ci xalaat leneen du dul taal di nga ciy jël ko recycler ko jox ko une deuxième vie transformer ko def ko ay meuble moo xam salon la moo xam ay pot de fleur la moo xam ay pouf la nga mën ko installer ci lieu public yi euh, ci école yi ak fépp fu mën mënti doon nga xam ni doonuñu ko dootuñu ko taalati di polluer li nga xam ne moom mooy euh, kii bi atmosphère bi beneen bi si topp itam mu dellu ci recyclage yi monsieur Niass sànq moo ngi ko doon wax ñun ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiitu ñoom la ñuy defal leen li nga xam ne moom mooy garab yi pare ne leen ko parce que dañ koy for ci yenn yi oustaz yi di ko wax dañ koy yonent bi salallaahu alayhi wa dañoo ñëwoon si moom mu ñu gis ñaari bàmmeel ñi leen mugal euh, ñu ne ko léegi bàmmeel yooyu pour nit ñi yàlla baal leen nan la ñuy def mu ne ko il faut nga saxalal leen garab boo leen saxalee garab dem ba nga xam ne garab yi màgg na am na kert ñu koy jëriñoo boobaa yàlla dina leen euh, baal li nga xam ne moom la leen yi mugal mu mel ni que tamit euh, initiative bi rafet na trop ci ñi nga xam ni ñoom ñoo jiitu ñu pare parrainé li nga xam ne moom mooy garabi yi bu du loolu sax li nga xam ni dalay jox oxygène garde gaz carbonique bi amaana mën nañ koo protéger moo gën ñu koy yàq te booy xool Sénégal dañoo miin ci lenn mbedd mbeddum buur la li may wax rek doo gis doo dox bay gis buur wala doomi buur di doxantu ci nga xam ne moom mooy mbedd bi kon fii Sénégal la ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko war a mën a protéger ci lan euh, mbalit yi nga xam ne moom la ñuy sànni ci mbedd bi ñu bàyyi ko parce que tey euh, woote nañ journée set setal partout au Sénégal tey nit ñi dañuy jël bu ñuy ramasser ba pare dañ koy jël jox ko UCG mu yóbbu ñu sànni fi gas suul taal mais tey initiative bi lan la mbalit yi nga xam ne dañ koo ramasser gësuñu ko suuluñu ko ñu ko mais dañ koo jël transformé ko jox ko une deuxième vie ñu wan ni que mbalit yi kat nekkul à chaque fois mën nga koo jël sànni mais mën nga kaa jël nga recyclé waat ko joxaat ko beneen vie même bu dul li ngay jël saa di ko installé mën na nekk ci cadre entrepreneuriat parce que lii tey jii jarul xeeb boo eh, defaree say pneu ba pare mën nga koo yóbbuwaat ci tapisserie yi ñu defaatale ko uusal la ko ba boo ko defee sa biir salon wala sa biir bureau euh, koo waxul pneu la du xam ne lii kat à base de pneu lañ ko defaree Euh, waaw Sénégal vert moo ngi noonu parce que Sénégal vert la ñu wax kon cela veut dire partout au Sénégal dañ fay dem et c'est pas la première fois aussi ñu ñëw fi nga xam ne moom mooy Kaolack euh, yàgguñu fi dara école 3 de Sine Saloum bii nii. ñëwoon nañ fa amal fii lii nii muy euh, set setal lu mu tudd sax recyclage pneu yi euh, yàggul dara génn nañ Sénégal kii lu mu tudd sax Dakar dem nañ part au Sénégal di def li nga xam ne moom mooy euh, initiative yi di ci invité jeunesse beeg ñëpp ñu ñëw rejoindre parce que environnement dongoo ñu ñor protégé ko dong moom moo ñu ñor parce que tamit même bu dul dara am nañu président bi nga xam ne tamit ñor na ko trop parce que ba mu faloo tamit ba mu ñëwee lu mu njëkk focaliser wu mooy wàllum protection de l'environnement moo tax muy woote ay reboisement engagement woote set setal bi di invité jeunes yëpp ñu nekk partout au Sénégal ñëw rejoindre initiative président rejoindre tamit initiative Sénégal vert parce que Sénégal vert tamit ay jeunes ñoom ñoo ko diriger euh, nekk partout au Sénégal te leen dongoo leen di ñor muy Sénégal jëm kanam alam bi jëm kanam environnement bi jëm kanam ba ñu protéger ko ba tey mu bokk ci réew yi nga xam ni dañ koy tudd ci wàllum set ci wàllum protection de l'environnement ba képp kuy jël exemplaire ci yeneen réew yi Sénégal ngay ñëw euh, initiative bi président bi mooy li may wax sànq ñu ñëw rejoindre ko ci euh, projet bi parce que tamit nekkul lu ndaw environnement nekkul lu ndaw parce que dañ koy xeeb mais tey jii boo jëloon garab bi ci àdduna bi wala bi ci Sénégal wala ci Kaolack yëpp nga dagg ko mën naa ne fii kenn dootu fi desati parce que ñun moom amal nañu njëriñ mais ñun mën nañ ne amaluñ ko njëriñ amaluñ ko njëriñ parce que ñun faale wuñ ko protéger wuñ ko xamuñu importance mais n'empêche moom moo ngi ñuy fournir l'oxygène bi nga xam ne moom mooy am même taw bi tamit moo ñu koy xëccal euh, di leen invité tamit ñu gën koo protéger gën a sàmmat alam bi merci beaucoup français français ay ah, noonu mu ñëw